ki ngeen koy baaxooy defal nag talaata bu nekk jëm àllarba muy seen xarit seen soppe Omar Diallo Diop di nuyu mbooleem personnel rajo bi te di leen ñaanal yàlla jàmm ju sax di ñaanal rajo bi yàlla na ko yàlla jëme kanam di siyaare mbooleem auditeur ak si yi nga xam ne bi baaxoo nañoo déglu rajo bi di ñaan sunu borom yàlla boo leen defal dégg ak topp ñëwoon na nañu ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne bi moo weesu woon ci boroom kër yi dikkaatoon nañu tam ci wàllu jigéen ñi ba diggoon leen ni dinañu ñëw ci ndaw ñi ndax ñett ñooñu ñoo composé kër te ndaw ñi ala kulli xaalin ñooy awniiru ëllëg ndaw ñi mag ñi dañoo war a xar seen tànk tubéy pour defar leen ñu defaru ndax ndaw bu la ko yàlla joxee yàlla jox na la sas wu rëy ndax bi la ko yàlla di jox muy ñëw ci yow yàlla di ko awale ci yow këyit wu weex tàll la taas bu ca am rek yàkku ko ca def bu baaxee yow la bu melee ne neen tam yow la kon góor góorgóorlu war na ci loolu sa moroom yu bari bëgg te yàlla joxu ko ñëpp muy njaboot yàlla jaarale ko ci yow jox la ko nga yor seen responsabilité war a takk sa ndigg nag pour fexe ñu tegu ci yoon fexe ñu baax yar leen yar bu rafet def ci ñoom jikko yu rafet yar bu rafet nag buñ ko dee wax li ci jiitu mooy yaru diine ndax yaru diine moo mën a wam mat jikko yu rafet boo dégg àddina bi ñu commencé di wax jikko yi dafa yàqu jikko yi dafa yàqu jikko yi dafa yàqu ku ne di ko wax waaye kenn indiwul solution solution bi nag munta weesu yaru diine ndax yaru diine moo mën a moo mën wombat jikko yu rafet jikko yu baax yaru diine ci la ngorne ne ak gore yaru diine ci la doylu ne yaru diine ci la maandu ne yaru diine ci la am jomne ne yaru diine ci la bépp jikko bu baax nekk kon yar yaru diine moo ci jiitu yaru diine moo ciy jiitu te boo xasee fexe ba yar sa njaboot yaru diine fexe ba def yàlla ci moom di diisoog moom di waxtaan ak moom di ko xamal boppam di ko xamal mooy kan di ko di ko xiir ci xamal ko ni ko da ngaa war a am jomb-jomb danga ngaa war a nekk nit ku am jom da ngaa war a nekk nit ku diiñ ku am personnalité danga ngaa war a nekk nit koo xam ni kii ku doylu lay doon da war a doon nit koo xam ne kii ku maandu lay doon ci lépp lu sa yoon newul sa yoon bañ caa ne loolu lépp ay waxtaan la yoo xam ne bii waajur yi ñoo am responsabilité waxtaane ko ak seeni njaboot te loolu sas yàlla sas la te seenu ñàkk koo def dina waral ñu am règlement de compte seen diggante ak seen borom parce que yàlla wax na ko ci alxuraan yaa ayyuhallazina amanu xuu anfusakum wa ahlikum naaran ila axiri aaya yéen ñi ni gëm ngeen ma na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal ko seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wax ko kullukum raayin wa kullukum mas'ulun an raiyatihi kenn ku nekk ci yéen ab sàmm nga ñala yàlla booleel dala ko sàmmloo ëllëg di nga teer ca kanam yàlla mu laaj la ñii ma la sàmmloo woon tan nga leen sàmmee woon kon gone boo ko yoree ñetti yar nag moo am am na yaru diine am na yaru bànneex am na yaru mbaam jéggal ma ci kàddu gi am na yaru mbaam am yaru bànneex am yaru diine ki nga xas yar yaru diine di di di di di ko ci teg di waxtaan ak moom di ko xamal yàlla di ko xamal boppam di ko di ko ñaax ci am am ngor di ko ñaax ci am am am diine di ko ñaax ci am jom di ko ñaax ci doylu di ko ñaax ci maandu di ko ñaax ci lépp luy lu baax kooku fa tabarakallaahu saa bu demee ba am ba amul rëcc rëcc mu def loo xam ne biir lu mu wërut a def la boo ko delloo siyee boo ko delloo siile yàlla joojee rek mu daal di dellu siwaat immédiatement fi saase boo ko daal di indi yàlla waar ko rek mu daal di dellu siwaat fi saase bu fekkee ni bii nag yaru bànneex nga ko yar bàyyi ko ci lu ko neex lu ko neex neex na la lu mu bëgg yow loolu nga bëgg lu amoo jéem jéemoo comprendre lépp lu mu bëgg rek yow dangay bëgg loola te un jour viendra bis dina ñëw sunu borom man ko orienté jëme ko foo xam ne fii loolu nga ko noonu nga doon doxaleek moom wala loolu nga ko tàmmaloon loolu dootu ko gisati loolu duutul mën a nekkati bu fekkee ni loola rek la tàmmoon problème mën naa am mën na koo dugal itam ci ay luxóor mën na koo dugal ci ay musiba mu ne mook mook mook mook jigéen ñi jigéen ak gone daanaka ñoo bokk atte parce que jigéen ji nga yor muy sa soxna boo ko yaree yaru diine fexe ba def yàlla ci moom heure bu wàccee yoon boo ko waaree rek mu si bu fekkee ni bii da nga koo yar yaru bànneex nag lenn heure bu wàccee yoon lenn rek koy dellusiwaat mooy la mu tàmmoon nga tàmmal ko ko muy yar ko yaru bànneex nga xañ ko bànneex booba loolu rek moo koy dellusi boo ko xañee bànneex boobee mën naa dellusi immédiatement pour bëgg nga reprendre at bànneex yooyu jëm ci moom wala nga xañ ko bànneex boobee mu jéem a seeti fu mu pexe yu def pexe yu mu mën a amee ji bànneex boobu feneen yàlla nañ ci yàlla musal wala yaru mbaam yaru mbaam ñëpp xam nañ ko mooy gëdd saaga yuuxu dóor loolu mbaama ko moom yaru bànneex itam wax dëgg yàlla bukkul ci yar bi gën ndax nit boo ko yoree danga koy tàmmal lu neex d'accord waaye léegi-léegi tam nga xamal ko ne ko nit dafa war a dund ci lu neex di dund ci lu naqari waaye bakkan di su ko tàmmal rek lu neex ndax ëllëg yàlla mën naa ñëw ak mbiram dootoo gis lu neex loola lu naqari ñëw bu fekkul sa bakkan tàmm ko ba nga mën ko ba nga mën koo dund dina la indil ay problème sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ma Ahmadu Bamba def na ko fii ci njaareem fa tabarakallaahu ñu ñuy soxna tuuti jóob la di wajur sëriñ Murtala moo ko indil am soow mu sedd suukar ko ba mu saf mu woo suñ seex tag ko ni ko demal indil ma xorom mu dem tibb ñaari loxoom xorom ba mu fees indi mu ne ko def ci mu def ko ci soow mi mu yëngal yëngal ba xorom si feey mu yëkkati naan jox ko ni ko naanal mu naan mu ne ko bakkan kenn du ko tàmmal lu neex rek ba nga koy bakkan dañ koy tàmmal lu neex di ko tàmmal lu naqari ndax bis boo ko tàmmalee lu neex kese kese kese bis bu yàlla bu la yàlla xañee lu neex loolee indi indi lu naqari nga am problème kon noonu jàngale la boo xam ne bii lu ñu war a mën a jànge la lu ñu war a mën a jël la ci éduquer ko sunu njaboot sunuy soxna ak sunuy doom ci won la ni la du bànneex rek moo war a continuer di neex tey gone yi tey bu fekkee ni bii dangay xëy taal oto dugal mu yóbbu jàngi nga def ko deux jours trois jours benn bis mu dem ci kaar yi dugg deux jours ñaari fan yee ja tegu mu dox ànd ak moroomam yay dox ëllëg nga jëlaat ko dugal ci oto bi mu xam ni ak oto mën naa nekk dugg ci kaar yi mën naa nekk dox mën naa nekk lu nekk mën naa nekk bu ko defee loolu gone gi nga yar tàmm ko nga boole kook nag di diisoog moom di ko xamal lu baax gone dañuy diisoog moom di ko xamal lu baax ndax gone li nga koy wax wala nga di ko ko jàngal dafa mel ni rëdd boo rëdd ci ciment bu tooy du far mag kay la wax ni bu demee ba doon mag moom boo ko bëggee jàngal fa mel ni ci ndox nga rëdd bu sa baaraam di teggeeku rek rëdd woo di far waaye gone moom di ko xelal di ko yee di ko yar di ko jàngal di ko xamal li mu war a xam loolu du ko fàtte du ko fàtte fu mu demee ba bëgg a pour def leneen lu bokkuloo la nga ko doon digal xelam yar na ca la nga ko doon digal mu dellu ginnaaw xam ni lii mu nar a def nii mbaa lii mu nar a jëm bokkul ak la ko daan digal loolu war nañoo mën a bo yar yar xale yi ci boobu façon te xam ni ñooy avenir u ëllëg muy gone gu góor gi nag muy gone gu jigéen gi ñu góor góor góorgóorlu ci xale yu jigéen yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ne na am njaboot gu jigéen yar leen teg leen ci siraatal mustaqiima def ci ñoom diine def ci ñoom yàlla ba ñu xëy mata dem néegub sëy nga may leen ñu dem néegub sëy yàlla ameel la àjjana ca loola kon loolu lu am solo la ci jigéen ñi la ko la ko yàlla dig boroom kër yi ak ak ak yi waaye digu digu ko ci góor ñi bu ko defee loolu ñu bokk ko xam bu baax a baax a baax bu ko defee ñuy yar xale yi bu baax te di leen yar yaru diine nit mën naa bañ a dem daara ja ba pare te li nga bëgg mu xam ko lépp mu xam ko nit mën naa bañ a dem daara ja te li nga bëgg mu xam ko ci wàllu yàllaam lépp mu xam ko di ko fexe ba ba di ko di ko jàngal julli fexe ba mu xam julli xam njàpp bu waxtu julli jotee nga julli loo ko comme jullit nga te mbiram yow lañ koy laaj ëllëg mu dem ba loolu làggi ci xol bi nga ci diisoog moom di ko xamal ne ko war-war la boo xam ni bii du lu ñu war a sàggane lu ñu war a caaxaane ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko bu bu xale bi bu amee juróom-ñaari at na ngeen koy digal julli bu amee fukki at te nanguwu koo def na ngeen ko ci duma nangeen ko ci caw loolu kon moom bëgg nañu teel a fexe ba orienté gone yi ñu jëm ci wàllu julli wàllu xam yàlla di leen waar di leen xelal di leen xamal loolu fexe ba ñemeloo leen see sa bopp booy wax ak ñoom ñu mën laa déglu attentivement boo leen di waar ñu mën laa déglu bu leen di xelal di leen jox ay leçon de morale ñu mën laa ñu mën laa déglu loolu dafa baax ci jur ak njabootam boo defee loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bañ yor njaboot rek topp seen bànneex lu neex xale bi rek neex na la lu ko neex rek neex na la doo bëgg lu ko naqari doo bëgg lu tàng ci moom doo bëgg lu wex ci moom doo bëgg lu metti ci moom loolu tam am na lu mu mën a yàq ca kanam am na lu mu yàq ca lu mu mën a yàq ca kanam waaye njaboot da ngay fexe ba boo boo li def ci moom loo xam ne bii boo fi dee continuer di nekk ak moom di nga gis ni lii nga defoon ci moom yow dal na sa xel sedd na sa xol te itam fa tabarakallaahu rafet nga njort ci moom boo demoon tey ba yàlla def la ko soob nga ba fi itam boo ko fi bàyyee fekk na def nga ci moom loo xam ne bii bu continuer façon boobee ak jikko yooyee ak melokaan woowee ak doxalin woowee mu di la fekk fa nga ne ndax ku jur doom ku ne ñaar sa doom rek nga ko yéene mooy mu mujj la ginnaaw ak mu gën la comme nag danga bëgg mu mujj la ginnaaw xel ba def ci moom loo xam ne bii bu boo ko jiitoo ba occ ko fi mu nekk ci loo xam ne bii dina la jariñ fa nga tëdd te ñaanu doom ci woy juram jaamu yàlla doom di ñaanal way juróom wa ko jiitu ji yàlla du ko delloo te itam luy ñëw la te mat a sóoraale te mat a bàyyi xel ndax xam ne du jaas bu defee loolu ñu bokk ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi leen di nuyu nag bu baax di nuyu personnel rajo bi mboolem animateurs yi journalistes yi ak ba ci chauffeur yi gardien yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare directeur bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di nuyu tam auditeurs yi nga xam ne bii ñooy déglu rajo bi di nuyu suñu soppe yi nga xam ne bii fa tabarakallaahu ñu ngi ñuy bàyyi xel jamono bu nekk di ñu déglu di ñaan sunu borom yàlla jëmale rajo bi kanam personnel bi yàlla gën a leen a kartanal ba lépp lu ñu bëgg ci yéene ci yéene ko ci yóbbu rajo bi mu jëm kanam yàlla man loo leen ko yal ko yàlla def ci barke yonent bi salaatu alayhi wa salaam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ki leen doon defal waxtaan wi mooy seen xari seen soppe Omar Diallo Diop Sénégal ci وما ذلك على الله بأثير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته